loo ba léegi mosul def fii dara dara dara dara dal ah en tout cas nag ñu monsieur le président de la république la ñu liggéeyal monsieur le maire moom bi mu joxe liste boobu moom la ñu gum moom la ñu ànda gannaaw ba ñu meree ba futt ñenn ci askan wi di sàkk mu tekki ndombal tànkam balaa le 23 janvier lu ko mooy ñoom daneen dëddu Macky Sall ak ay ñooñam ñu waxati ci violence bi ñu nemmeekuwaat muy gën di bari fan yi association nationale bi ëbb imam yeeg ulema wu Sénégal yi àdduna ñu ci ñoom ñi leen nag euh, ñu ngi woo ku ci ku nekk mu jël ay responsabilité am muy ñi faree ci nguur gi waaye itam di faree ñi faree ci ku kujjeeg longu politique gi jaarale ko ci ab communiqué association bi ëmb imam yeeg ulema wu Sénégal yi di artu jëmale ko ci groupe Sénégal di ko fàttali ni moom moo am monopole violence légal euh, jëmale ko ci local yu ñu bëgg nag mooy ñu fexe ba ñu def ko ci anam bi gën ñu onu ceeg Mouhamed Diop àllarba gi ñu génn opposant yu bëri danoo jëloon ab dogal ngir jàppale maire Mermoz Sacré-Cœur ci gunge ko mu dem wuy ji convocation gi ñu ko convoqué woon ca tribunal bu Dakar waaye dañu leen wañ ginnaaw ba ñu renvoyé boobu lekk appel ci weeru décembre gi ñu jëm ay scène de violence ñu dund ko sabab association des imams et oulémas du Sénégal ak cadre unitaire de l'islam yëkkati seen kàddu wax ci xeetu violence ci saa yuy tabe wala bu ñu jëmee ci ay langue politique xeetu woote yu bëri jëm ci wàllu violence mën na suuxal réew mi bu ñu sukkandikoo ci association nationale membres et oulémas du Sénégal ci bureau exécutif ba mi ngi woo parti pouvoir yi ak opposition bi ñu xam ne réew mi ñoom ñëpp ko bokk te it ñu woote jàmm ñu ngi invité it état bu Sénégal moom mi nga xam ne moo yor kaaraangeeg ñëpp mu fexe daal ba violence yu ñuy dégg wala yu ñuy gis ñu mën ko moytu ngir ñu mën a amal élection territoriale ci mois de janvier yu mucc ay bu dee cadre unitaire de l'islam moom bëgg na lëkkaloog ak église bi fexe ba xaatimloo mboolem seen ñiy def politique moo xam opposition beeg pouvoir bi ab charte de ci seen politique bi ngir ay élection yu mucc ànd ak jàmm te du am benn fitna. muy ni ñu koy faral di defee moo saa saay suñu nemmeekuwee situation yu ci mel ni démb. seen wareef dong lañu def. Mhm. li ñuy xaar ci ñoom la ñu def. te nag ay magu waxoon nañu ko la nekkatuñu magum xamoon nañu ko alerté nañu dànkaafa nañu ñaari parti yëpp. Mhm. mais dégg nga ci seen communiqué bi na nguur gi jël ay responsabilités am te woyofal. c'est-à-dire que tiraillement yi am yëpp danga nga ciy gis dogalu nguur gi même ñoom. seetal nga sànq élément bi koy jiitu. Mhm. ci Moussa soow mhm. même ñi àndul ak moom sax ci li mu def dañ koy menacer c'est-à-dire que am réew mu ne su ko jiitee ak képp ku àndut ak yow nga taxé ko taxé ko politicien wala nga menacer ko yooyu moo dul jàll moo tax kàddu imaam yi ay dànkaafu yu am solo la yoo xam ne nguur gi daf ko war a jël appliquer ko à la lettre. Mhm. respecté sénégalais yi ñu respecté yoon fépp foo xam ne yoon nekku fa mel ni dogalu su préfet yu mel noonu ñu teel ko dindi et manifester clairement ni du ñu nangu lu dëng am fi mhm. nit ñi ñu bàyyi leen ak seen ay liberté xam nga comme tey par exemple am na presse bu bind nii euh, Moussa Fall réussir na baptême de feu ci VDN bi ci manifestation mais c'est extrêmement grave ça c'est inimaginable jiite gendarmerie nationale manifestation bu ndaw war am ci kenn ku ñu convoqué nga génne loo xam ni nee nañu baptême de feu woon pour yow. Mm-hmm. donc lan la ñu prévoir woon pour askan wi. cest à que foofu la Sénégal tollu ku ne na nga toogaat taxaw ci seetu xool sa bopp ni kan nga ëppale ci Sénégal. Mm-hmm. kenn ëppalewul kenn lenn ci Sénégal. Mm-hmm. ni ñu jiite noonu la keneen mën a jiite partage bi tegu ci yoon te ñu respecté kàddu koy kaddu yu kilifa yi diine yi wax lu ci am solo la parce que ñëpp nag ay njaboot lañu. Euh, du nguur gi dong Serigne Saliou ndax woo nañu itam ñu nekk ci kujje gi ñu ñëw jël ñoom itam seen responsabilité waaw xam nga ñoom euh, comme ni ko Mansour waxee dañoo dañuy def seen wareef. Mhm. mais man ànduma ci charte boobu xam nga ànduma ci. parce que réew mi am na ay loi yoo xamante ne nii buñ ci sukkandikoo rek problème du am. am na fa xam bu ñu fa jaaralee réew mi rek du am moo tax ma ne yu demee nii su amee man doon na gën a baax association imam yi. ñi nga xamante ne ñoom ñoo jiite réew mi ñu wax leen dëgg. cest à wax leen ñuy appliquer démocratie dans ce pays. te bàyyi chaque fois yi bu amee parce que pour man genre porte de secours lañuy indi euh, comment dire le président de la république. xam nga moom loolu da ngay gis chaque fois élection bu fi daan waaj am da ngay gis ñu ne association des oulémas et cetera recevoir na leen pare donc ñooñu tey ñu ci bëri bu ñu génnee ne dañuy def charte pour man jàpp naa ne la ñu war a def. dañ ko bàyyi de côté li ñu war def moo di. wax président bi tënkul ci loi yi nga xam moo nekk ci réew mi. wax président bi tënkul ci démocratie bi nga xamante ne moom lañ instauré ci réew mi gis nga tant que ñu ngi tënku ci démocratie tënku ci yoon yi nga xamante ne loi ñu voté suñu bopp su boobaa soxlawuñu charte parce que bu fekkee nañu voté benn charte boo xam a xamante ne moom lañ voté suñu yooyu baaxul te mm-hmm. je crois que en république il faut que loi yi nga xamante ne moom la askan bi yëpp voté par ay référendum par l'Assemblée nationale su boobaa je crois que loi yi bu ñu ko mettre en application problème du am gis nga sous le règne de Abdoulaye Wade mhm. bi muy def euh, bëgg a am troisième mandat bi mooy le jour du 23 juin xalifu Kaolack bi moo génn kooku à l'époque moom je crois que c'était presque l'unique boo génn wax Abdoulaye Wade lii ngay bëgg a def bàyyi ko mhm. carrément bàyyi ko mhm. à l'époque sax am na ñeneen ñu ko doon ngaañ mais l'histoire lui a donné raison donc je crois que ñoom ay kilifa diine amuñu lu ñuy crant war nañu mën taxaw ne Macky Sall li nga def bàyyi ko. tënkul ci ci ci loi réew mi. Euh, pa Assane nga si ton bi mënoon na gën a dur. mais <coughs> Mansour li mu wax dëgg la. Mhm. Serigne Saliou ñëw yokk ci li Serigne Saliou yokk ñun ñëpp yàlla nañ ci yokkoo noonu parce que loolu moo la dëgg bu ñu nee <coughs> imaam ak ulema. Mhm. heure bu nu leen déggee kilifa yu baax yooyu yàlla na yàlla yokk leen. Mhm. mooy toujours. bu ñu amee impression que nguur am na benn tànk bu xaw a sooke li Serigne Saliou wax moo la dëgg dafa mel ni rek issue de secours boo xam ne ñoom ci la ñuy jaar calmer les ardeurs. gis nañ fi au mois de mars ce qui s'est passé c'était très compliqué euh, nguur bi doon menacé di jaay doole di wane na moom dafa am doole <laughs> moment boobu am na benn moment ñi fa nekkoon ak ñi ñu àndaloon mennum Abdou Mbaw ma wax ko fii moom lañ ci ràññewoon sax muy wax ak tontu ñetti des ñëpp lëlu. Mhm. ci ñenn ñi wax jamono bi mais loolu ba mu amee. ay kilifa diine danoo wax sunu maam ba baax bi sëriñ Muntaxa yàlla na yàlla yokk ko bu dul compter moom keroog amaana nit ñi forcé mu jur leneen mhm. mais noonu ñu calmer les ardeurs dañu bëgg suñu kilifa yi ñuy wax nguur bi fi nekk moment bi opposant yi di araftu naan ah kilifa yi wax leen parce que kii li muy def nii jaaduwul de mhm. yor yat yor alal yor lépp di def loo xam ne mooy li ko neex nit ñi naan déet déet déet yéen kilifa yi ngeen toog ba mbir mi ëpp leen ëpp ñu loxo ñun ëpp ko loxo moom moom mu mel ni ku xaw a xe ngeen ñëwaat ne nit ñi bàyyi leen yàlla neenaat naag lu si foofu nag suñu borom nag daf ñuy xaw a mere tuuti ah. Mm-hmm. il faut que ñu ñu dem ci dëgg ko diine nag moom lu nu làkk-làkk arab mun ko lool di wax alxuraan ca kaw ñëpp di dégg mu neex lool. bu jëf yi saafoon teewul ak loolu du sotti. Mhm. Paasan ñu wax ci ay cadre ak responsable yu nekk ci ministère bi ñu dénk wàllu euh, napp ñoom ñi la nag yóbbul nañu leen ay euh, jumtuwaay bu ko defee ñu gën a mën sëgg ci seen liggéey ñe la ressource halieutique yi ñu dippeeku économie bleue euh, li ni mel di ab initiative bu centre national de formation des techniques de pêche et de l'aquaculture ni ñu ko jagleel daal di jot seen i ay diplôme ginnaaw ñeenti weer yu ñu leen a tàggat directeur bu centre bi di sàkku ci ñoom ñu fexe ba nga xamante ni bu ñu defee seen génération yi di ñëw dinañu ci mën a gis seen bopp ñu undi cek Samuel fay économie bu la mooy lan nag mooy li nga xam ne euh, yàlla jagleel nañu ko muy géej gi ak lakk yi ak richesse bi nga xam ne ñu ngi koy générer ñu fexe ba mu mën koo gérer bu mu wéy nekk na li nga xam ne moo mun a permettre Sénégal ku nekk gis boppam ci activités yi nga xam ne ñooy activité pêche maritime ñu xaar ci ñoom mooy ëpp li nga xam ne ñu ngi koy def sur le terrain ñu mun ci dugal dimension développement durable dimension inclusive boobu sox xaar nañ si ñoom tamit en tant que ambassadeur ñu fexe ba vision bi nga xam ne mooy bu ñu porte ci wàllum économie bi la ñu mun ko développer tas euh, tasaare fépp si Sénégal comme ça képp kuy acteur pêche képp ku ciy yëngu nga mën a inscrire euh, li ngay def yëpp ci wàllum économie bleue. ab euh, Diego Mansour ngir génération future yi mën a gën a gis seen bopp ci wàll wi. laay boo ko sànnee ci bërigo xëdëng xëdëng danga lay def. ñii Sénégal ñàkkul ay boroomi xam-xam ci wàllu pêche ñàkkul ñu xam am xam-xam ci wàllu agriculture mécanique bu bees bu automobile bi ay école la nga fiy formé ay xale yu fees dell. umpli ñu ni Sénégal xam-xam bu nekk ngi fi. Mhm. spécialiste yaa ngi fi doon ay jeunes mais yëf yi du loolu tey techniciens yi lu ñuy liggéey technicien pêche yu nii lu ñuy liggéey kan la ñuy liggéeyal. Mhm. mareyeurs yi xaddi nañu sedde nañu. nappkat yi xaddi nañu sedde nañu parce que bu ñu demee ci géej gi amatuñu jën tawat lañu fay jëlee. Mhm. ñiy def mareyeur gisatuñu sax jën bu ñu jaay. gisatuñu jën bu ñu jaay kon ñii jumtukaay yi ñi leen jox te tey ñu ñu médiatiser ko nii ban njëriñ la ñuy amal. tey man li ma gis ñi ngeen ngeen wan ma ko ci ay jumtukaay ay ordinateur la de. Mhm. damaa xamul nag daa am lu nekk xëy na ci ay. defal nañ leen formation itam ñeenti weer ñeenti fan plutôt. formation ñeenti fan parce que kii leen di former euh, xëy na tugal la jóge ak yu mel noonu. Mhm. bëggoon naa xam vraiment précisément ñu wax ñu formation boobu fan la màcc jëm. Mhm. ci wàllu jën yi. ak ñoom lu ñu mën a def ci wàllu jën yi mën a yokk yokkuwaat ci géej gi xaddi suñu géej gi dafa ngand te amul jën. jën dafee cher bala nga naan naam nag nekk fa. gis nga bopp bu rëy tey metti dëkkee metti bopp bu sedd te mettiwul moo ko gën mm-hmm. tàggatu geeg renforcement de capacité yooyu yooyu yooyu nañ bàyyi suñu géej gi ñu jaay mu am jën gaynde